mais aussi maa ngi bëgg sama téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi may seetaan ci TNT bi euh, canal 108 euh, leen bëggee di leen jaar bu baax a baax mais aussi euh, fàttuma ñi nga xam te aussi ñu ngi may seetaan via Facebook mais a baax di nga leen bëggee di leen jaajëfaat bu baax a tey nag umpale leen dafa nekk jour bu spécial mais jour bu neex la ci bés parce que man mercredi bu jotee ba ma am invité damay kontaan mais nag tey nag invité bi dafa utek invité yi ma daan am tey nag invité de valeur la am mais aussi invité de marque une princesse la diva laa ko tuddee ah borom la voix d'or ah, koo xamante ni ah, daanaan la ci biir daanaan mais aussi star la ci biir star nee ko sànq ni ma ko tuddee stade planétaire laa ko tuddee l' international ko ki nga xamante ni mooy musu nee la bu yuuxoo nga kontaan bu yuuxoo nga jooy su yuuxoo sa xol tooy mu nekk koo xamante ni dafa tarbiwu li nga xamante ni mooy musique euh, depuis ba mu ci nekkee ba léegi gis nañu ci li nga xamante ni mooy ci biir musique sénégalaise euh, damay bàyyi mu nuyu ñi nga xamante ni euh, mooy téléspectateurs yi ko nga xamante mooy musu musu maa lay bëggee di lay ziar. DJ Kals bonsoir. maa ngi jaajëfee di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi nga xamante ne actuellement nii ñu ngi lay seetaan di la bàyyi xel. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen sargal di kontaan trop ci invitation bi. Eh, ñoo la gën a kontaan kooku ki nga xamante ne mooy Moussou Gueye li nga xamante ni noonu la nuyoo eh, ci li nga xamante ni mooy yuuxu man nekk voix nga xamante ni eh, saa yu ko yuuxoo rek dama xamante ni mooy Moussou mais Moussou actuellement nii ñu ngi seetaan ci TNT bi canal Sahut ak ñi nga xam te aussi ñoom ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi ñu bàyyi leen rek nga présenté actuellement nii nga wax leen kan mooy Moussou exactement parce que Moussou war nañ xam kan mooy Moussou waaw je suis une jeune talent. Mhm. dëkk Kër Mbaye Fall. Mhm. maa ngi juddoo Sicap Liberté 5. Liberté 5 yi. waaw fa laa juddoo màggee fa après ñu tuxu dem Kër Mbaye Fall. Mhm. fa laa defee sama cursus scolaire. ok aussi en même temps ci laa nekk genre maa ngi jàng ba léegi. ah bon hmm. am naa sa licence en sciences politiques. waaw politicien laa am tey. <laughs> léegi maa ngi liggéey. Mhm. comme caissière si benn resto. le comptoir. ma leen di nuyu de passage sama collègue yi fa nekk. Mhm. ñuy ay nit yu baax. waaw. ndeysaan euh, Moussa nekk koo xamante ni gis nga ah parcours am nekk parcours bu riche mais aussi CV am nekk CV bu riche ah, parce que artistes ma fi daan dalal ñenn ñi nii laa tax ñu bàyyi jàng nekk ci musique euh, ñenn ñu bëgg xaalis moom ëpp ñenn ñu bëgg nekk star mais ñu gis saa ah, di boobu ba léegi yaa ngi ki euh, nga xamante yaa ngi jàng mais yaa ngi liggéey aussi mais nga dugg ci biir musique mm-hmm. musique lan moo la dugal ci musique bah c'est ma passion mm-hmm. j'ai toujours aimé la doon naa ko def depuis bi ma nekkee CM. ok waaw jamonoy Fosco. waaw <laughs> depuis bi ma nekkee CM. Mhm. après ma dem lycée. Mhm. ci sama trois années yi ma fa def yëpp ma nekk. terminal waaw nekk président section féminine. Mhm. je gérais les majorettes les miss. Ah aussi miss yi heure bu ñu daan dugg damay woy ay woyu cosaan notamment bi ma woy léegi nii mais non <laughs> défilé wu ma dama leen doon woyal juste bu ñuy dugg. parce que d'habitude waaw ay cosaan lañ doon def. Mhm. séeréer joola genre yooyu. Mhm. waaw noonu laa doon def aussi. affaire bi topp la. waaw ba tey mu nekk ci deret gi. waaw damay ragal sax actuellement ni sa collègue yi nga xamante ni nuyu nga leen léegi. Mhm. xam naa da xëy un bon jour ne leen bàyyi naa liggéey bi man xam naa loolu. parce que actuellement ni ak li nekk ci boo ko yeewee ba sénégalais yi xam la <laughs> euh, di nga bëgg liggéey mu tëla parce que di nga nekk estar boo xamante nit ñi euh, dañ xëccoo di la njëkkante mais mosu nga nekk ci mise trois ans peut-être. waaw bi ma amee sama bac après si la commencé ne peut-être mën naa allier les deux. ok waaw ah, si ça c'est vrai euh, parce jàng moom mënul yàq dara. Mhm. mais aussi musique bi aussi mënul musique bi laay xalaat mu yàq jàng bi. mu yàq jàng bi mais mu yàq musique bi. waaw euh, depuis boobu ba léegi trois ans yi léegi lan nga ci def li nga xamante ni euh, sénégalais parce que gis nañ Moussou am na benn clip bu mu génnee récemment yàggul mais aussi musu nekk ci benn euh, label de production bi nga xamante ni yaa ngi job ak ñoom di leen wax nag nga kii ngeen di gis nii ah wax naa ko sànq si samay publication moo nekk série Babel bi nga xamante ne actuellement nii moo ngi yëngal Sénégal générique son bi moom moo ko def Euh, borom voix bi mais balaa mu may wax ci li nga xamante ni euh, mooy euh, relation ak waa néegu rap musique ah. mhm. wala ak ñi nga xamante ni mooy producteurs yi dañuy bàyyi rek xam nga mu yégalal ñu foofu noonu bu ko defee ñu def ko en acoustique ñu xool ci générique bi tuuti rek ñu ñëwaat. bon générique bi moom ce sera sans sans instrumental. ah comme tu veux. Mhm. dajale toppuñu sa tànk doon rëcc leeney kuy bulli gën kuy feewale waay bokk ëtt wuute jamono yaa ngi Babel yeewaay yërmande moo ñu naas mbëggeel la ñu jow nobel dooleel ñoo fii rangi xaajal ñoo kuy boole bokk at wuute jamono yaa ngi ewaay ewaay dégg musu lu mu yuux may musu euh, yow da nga da nga da nga xëy gars yi ñëw jël ci la sa kër wala da nga dem en casting euh, gars yi gis sa talent jël la nga bokk ci li nga xamante mooy ci production bi wala nu mu demee noonu waaw effectivement du woon casting mais waa Néegu Rap ñoo gis sama profil waa mm-hmm. ñoo gis sama profil euh, sur TikTok. Mm-hmm. après si lañ ma contacter pour ma ñëw defal leen kii bi. ah ok pour nga defal leen pour ma defal leen générique waaw parce que am na lu ñu yëg parce que voix bi macha allah je touche du euh, nekk na voix boo xam te ni euh, dafa spécial mais aussi voix bu neex la mm-hmm. Moussou xam naa da ngay làqatu rek di nëbbatu Sénégal yi mais Moussou depuis boobu léegi yow Néegu Rap musique ba ñu la dugalee ci ba nga def générique bi. yow producteurs yi tey jii nii euh, da ngeen am benn partenariat bi ngeen defal contrat bi nga xamante ne da ngeen ko signé la wala nu mu demee noonu. si dafa am contrat bu ñu signé. pour ah, kon Moussa am na xaalis eh Moussa am na xaalis Moussa damay bëgg euh, damay bëgg nga firi. Euh, parce que nee na réew mi fii nga xam naa ne boo daanelee fii fan ñu laal instrument yi bu ko defee xam naa ni. Mhm. Moussa dina mën a yëngu tuuti contrat la. waaw kon am nga xaalis. <laughs> maa ngi sant yàlla talaa talaa <laughs> xaalis am naa ni tey moom xam naa ni poos yi dina dund tuuti. maa ngi sant yàlla bu baax. Eh, contrat pour combien d'années. contrat non juste pou eh, son bi jëm ci générique bi. ak beneen bo am si biir série bi. Ah, ok mhm. léegi ñoom daal ñoo gis sa talent ah, si TikTok. Ah, bu ko defee ngeen ngeen job en contrat. Mhm. loolu am solo mais xam naa ne Moussa actuellement ni man bëgguma bëgguma émission bi sedd damay bëgg Moussa ngay yëngu yëkkatil ma ñu xool ak instrument yi lu ñuy def tuuti ci voix bi. d'accord. gëm diw ne ko matata gëm diw ne du liin maa yéen ñëpp na le damay lu lambi ku fi bëgg jàll joxe nga xamante muy musu dégg ngeen ci li euh, la bien sûr ok euh, Ndiaye ndeysaan euh, mhm. mais mu nekk morceau bu neex ah damay naan sax ni ñu ko wayee sax moo gën neex ni ko Ndiaye wayee parce que kii nu mu ko këeroo léegi mhm. dafa nekk lu naay soo xamante ni mais aussi musu actuellement nii nga nekk fi nga xamante ni mooy diwaanu nga xamante ni ni ñu ko mais man considéré comme un jeune parce que gis naa li nga xamante ni mu ngi coow da nga ko boo ko yeewee rek Sénégal Sénégal wàcc <laughs> mais nag euh, depuis boobu ba nga nekk ak say moromu artistes yi nga xamante ni yéen a ngi liggéey euh, ban relation nga am ak ñoom actuellement nii relation bi nga xamante ñoom bu ñu defee événement pourquoi pas musulu yéeg si yenn si yenn ak yooyu si euh, xamante naa ci ak quelques quelques-uns mm-hmm. ba récemment le premier décembre si je me trompe lañ defoon benn événement fële Playa ok invité woon ma si ma participer Alvin moo ko organisé woon waa xalaat event Kër Mbaye Fall mhm. ñoo ko organisé woon jëloon ci trois artistes Alvin laa si xamante loon après moo ma invité woon ma dem participer si te expérience bu neex la woon franchement parce que même bi ma demee ci répétition yi mhm. j'ai adoré parce que du chaque jour laay nekk ak ay artistes comme samay morom genre. Mhm. mais répétition yi neexoon na aussi soirée bi neexoon na j'ai adoré ma leen nuyu aussi. ñu nekk ay nit ñu baax ma ñëw ñu yaatal ma. Mhm. franchement waaw. ok nga nekk euh, Nessa ñu nekk ay nit ñu baax. Mhm. mais aussi da nga nekk ak say moromu jigéen actuellement nii. Euh, comme le cas de Soxu Bébé euh, gis nañ ki nga xamante ni mooy Jeyla mhm. ah, ak tant d' autres ah ñoom euh, Jeyna Balde genre xam nga booy chaque jour ñu génn rek ak benn facette bu bees ñooñu est ce que am ak ñoom am ak ngaa ñoom xëy relation bi nga xamante ni yéen a ngi contacté wu ñooñu genre. ah non pas encore. Mhm. xamante guñu. ok mhm. mais yaa ngi je ne les connais pas si damay gis seen seen ay produits seen ay musique yëpp. franchement elles sont très bien elles chantent trop bien. comme vous. ah waaw <laughs> merci. ok li ñuy lu neex moom franchement. Mhm. peut-être nag àddina dina dox ba man ak ñoom ñu ñu xamante aussi. ok loolu talaa na ko na ko na ko parce que mhm. bëgg moom it aussi euh, mu nekk sa ginnaaw liggéey di wàññi liggéey bi parfois dañ xoolal dañ koy naan di nga toog une semaine doo liggéey. <laughs> loolu da ciy am solo <laughs> ah, parce que tey jii musique dina dem ba toll foo xamante ni xam naa ni doo amati temps yi. Mhm. ba war a xëy ak yooyu noonu genre mais aussi avec liggéey bi noo koy boole ñaar yooyu noonu. waaw ndax parfois yaa ngi kii moom ma doon ne yaa ngi doon répété ak sa ñaari musiciens yi. Mhm. tey ñooy répété ñoom ak job bi. c' est très dur c' est ah. dur parce que déjà man soir laay liggéey. car au soir laa nekk 18h je descends à 1h du matin wala 1h30. Ah voilà ma yegg sama kër day guddi. te Derklé laa logé. Mhm. ñii may répété ils sont à Kër Mbaye Fall. Mm. bi ma commencé liggéey ba tey mën naa ni quasiment est-ce que répété ñu ay 4 fois tey sax démb dama dama waa wàcc ñibbi. pour mu mën a répéter ak ñoom le matin nii ndax ñu ñëw parce que ça fait un bail répété wu te du yoon nag ci koo xam ne dafa war a def carrière mhm. waaw j'en suis consciente moo tax maa ngi wut solution gisoo ne job dina la xaw a tënk tuuti rek eh, si si si tënk na ma lu bari tënk na ma lu bari. parce que yenn yenn événement yi sax bu tombé jour yi nga xamante ni mhm. euh, sa kaar yi nga war a euh, yi nga war a gont ak yooyu. vraiment si mais maa ngi si waxtaan ak sama Mm. waaw incha allah dinañ ci trouver terrain d'entente dina dina comprendre. dinañ waaw patron yi peut comprendre loolu parce que musique bi aussi ak liggéey ku nekk rek euh, mën nañ ne patron bi tey day xool li nga xamante ne mooy. Mhm. avancement entreprise bi. mais aussi gisee ne musu tey jii euh, bu ma ko bëggee indi fii nii comme caissière muy liggéey en plus mu bëggee boole musique xam naa dina aw dina am euh, benn benn benn benn gàllankoor bu ndaw bi nga xamante ne benn retard bi nga xamante ni nga am mhm. ci métier bi toog rek ba nee la musu est-ce que doo benn si yi. boole wu ma leen nag jaxase wu ma leen xam naa ni sax xarit la seen nit la euh, c'est juste rek xam nga musique euh, dafa nekk loo xamante dafa xaw a fiir tuuti mhm. loo ko boole rek day dem benn instant day nangu loolu da koy nangu waaw mm. dëgg la fan yële passé on a eu à en discuter ma ndax euh, programme yi dafay jël genre dafay bëri mhm. ma ne ko mënuma xam ndax day bëri wala du bëri mhm. parce que des fois dafay nekk loo xam ni damay toog tey ñu ne ma suba di nga dem fii wala suba di nga dem fii te bu boobaa mën naa ko pénaliser moom te genre mënu ma xool loo xam ne man kese lay arranger parce que moom aussi liggéeyam peut-être moom la am mhm. waaw ma expliquer ko bañuma liggéey au fait mais j'aime bien mon travail et sama collègue yi yëpp. non je me sens très bien là mais sama collègue yooyu amu ci affaire yi da ngay mën a choisir benn ñu xam musu euh, ci lii la focus. j'aime bien mon travail c'est bien beau nice na trop. mais nag war nañ xam musu yoo xam naa ni musique bi nga gën a bëgg da nga koy bañ wax rek xam naa ne bu seetaanee émission bi. non man musique laa gën a bëgg ragaluma loolu bañuma ko wax. ñëpp xam ne man musique laa gën a bëgg. waaw kon alhamdulilah musique laa gën a bëgg mais da di liggéey mënul ñàkk. ok non comme bu demee benn bi nga xamante dina am yokk si patron mais aussi bu nekkee mi ngi may dégg patron. Euh, ñun ñoo a ko ñaar rek nga comprendre suñu artiste bi nga xamante ne actuellement nii dafa commencé marqué ay empreinte te euh, te sénégalais dañ koy soxla adduna bi dañ koo soxla donc nag da ngay am compréhension bu ndaw rek kooku ñun ñoo la ko en tant que des porteurs de voix euh, bu ko defee xam nga ñun dinañ ci waxtaan dañuy déplacé ñëw foofu ñu waxtaan ak moom parfois boo amee yenn programme yi mu mën la ko may gratuitement nga dem mu am koo xamante ni mm-hmm. day nekk sa secrétaire boo demee mu mën di gérer aussi loolu day am solo bu baax a baax mais mu si juste après adduna bi nga xamante ni yéegal nga ko nee naa tey damaa bëgg a toj sa voix ah, bu ko defee sénégalais yi xam kan mooy musu parce que am na talent bi nga xamante ni mu ngi te bu ko yee yéen nee naa leen ah, Sénégal dina wàcc ñu yëkkatiwaat benn air xool te dama la woyloo de. Badou. sa ñoom fond de fer lay doon ah toog ci banque compte xaalis xaytu xaalis ah suma sa ñoom fond de fer lay doon ah toog ci banque compte xaalis xaytu xaalis ah alal àddina moo nga fay jeex moo nga fay jeex fond de kaido kumake mama ila hallelujah dunia from the felaido kumake mama ila hallelujah dunia from the felaido felaido kei gidmana bai samoa suma ma di jàppale bépp jigéen ngir coono xajle fam de fi ba de fi lay de kii ngir mën sama waa waa suma ma di jàppale bépp jigéen fam de fi ku ma gi ma may la waa dunuya lay jigéen ñaa ngi jigéen ji ñi nekk ci tool yi bu góor def jigéen ngi ci biir dimbali leen wana képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay biir femme de fer xebu ñu benn liggéey ñi ñooy jëmaat femme de fer Hallelujah.

mais en tout cas c' est trop cool c' est trop nice aussi ki nga xamante ni euh, mooy euh, euh, système mousse ah mousse bi nga xamante nee naa la bu ñu rek séeréer dina am li nga xamante ni dina jóge ci yow mais aussi di nga am li nga xamante ni di nga koy yegg sa biir xol mais mousse say produit parce que gis nañu ko ba nga fii ki nga xamante ni mooy Mariama Mariama Marema Marema autant pour moi ak ki nga xamante ni mooy Ndiaye. mais say produit actuellement nii yaa ngi ci yaa ngi ci ñaata clip euh, ak ci ñaata morceau yi nga xamante ni génnee nga ko sur Sénégalais yi. ba benn moo génn. mooy clip bi pour le moment waaw boobu nga yor. xam naa ne boobu di ngeen ko capté lundi incha allah naa ko ci xel mi. allah mm-hmm. sinon yeneen yi ñu ngi si kawam notamment yu Babel yi yooyu pareegul mais bientôt. incha allah da ngay job ak deux waaw. am na yeneen aussi yu pareegul. Hmm. mais comme. waaye da ngeen di codé yéen sa waay naan la nii xam nga artistes yi dañuy codé dañoo bëgg di nëbb tellement que gars yi duñ ko sàcc de man hmm. laajuma la titre yi bu ma la laajee hmm. titre gars yi dañ koy sàcc xam naa sax <laughs> mais yaa ngi ay tournage clip yi nga xamante ni yu war a génn waaw on essaie de finir les sons d'abord. ok après ñu door a dox ci tournage yi. yenn tournage ak yooyu noonu. Mhm. mais instant ni album nga ñuy pareel wala mixé wala EP comme ni koy artiste rappeur yi doxee wala loo ñuy pareel actuellement nii parce que instrument yi ak gars lu ñuy door nii xam naa ne bu génnee àdduna wàcc de. non pas album mais. peut-être deux ba trois sons. Mm, en attendant mais ko Sénégal yi. waaw bu ko defee ñu gën a mhm. ràññee kuy musu. waaw aussi musu dafa ni. yow da nga xaw a da nga da nga da nga may rus lan la wala da ngay rus ñuy toog. ñii ma mënoo leen rus non mais qu'est-ce qui passe Moussou damay bëgg nga firi sénégalais xam kan mooy Moussou. pourtant je suis free nag. voilà Moussou waxal sénégalais yaay kan yow Moussou yaay kan yow. free naa la pourtant. Moussou yow yaay kan yow Talla waxal Moussou yaay kan yow. Moussou Moussou bi nga xamante ni ba mu bëgg Moussou. génne li nekk ci moom sénégalais yi xam kan mooy Moussou. ah kon lim li ne ci man génnagul nii. dama bëgg génne ko daa am loo may nëbb. déedéet nëbbu ma la dara. kooku nëbbu saa yi. nëbbu ma ko kenn ñii ñoom laay répété chaque jour. Ah. même bu dul dara sax même bu ñu amul programme amuñu dara. dañuy daje. Hmm. répété kafoore parce que c'est notre passion. Hmm. kii dafay guitare kii aussi lii la bëgg. Hmm. man aussi dañuy ñëw des fois suñu kër. defaa ko que ñoom Bachir wala que ñoom Ahmed ñu dem. répété kafoore mënoon nga leen gis naa ni. Ahmed sa waay non attends bu wax loolu bu wax loolu. Ameth boo yeggee supprimer bi loo gis am na une sa waay loo gis am na une première. oui moom la da leen xooj de ah Bas. sa waay ñu jaxasale Bachir. ah da ngay comprendre quoi. c'est une première non c'est une première. ñii samay doomu nday lañ vraiment. ñu ay nit yu baax. kii Bachir Ahmed. ñu dëkk Kër Mbay Fall. nekk ay jeunes ñoom aussi am seen passion. Mhm. muy musique mhm. man ma yor sama voix. ñu décider ànd di répéter pour xool après nu ñuy réaliser suñu suñu suñu suñu carrière musicale mu gën a nice te incha allah bëgguma tàkkali ko ak ñoom benn yoon. Mm. waaw am na lu ma déggoon gars yi ne nañ artistes yi dañuy trahir. ah non never. Bachir man loolu du loolu mu bokk si sama. artiste yi non non si dañuy waxtaan artiste yi euh, euh, Mouhamed artiste yi dañuy trahir ñoom ndeysaan bu ñu demee benn instant yëg benn succès bi dañuy naan ah Ameth xamatul dara damay jël kenn. ah wala ñu ne ah Bachir daal lu muy kër wala Bachir euh, lu muy guitare neexatu ma. ah daa nag. daa mën ah, kii laaj ko tey bi ñu répété li ñu wax laaj Bachir dama ko. ah répété nga tey. tey si suba j'ai été obligé ñu répété parce que gëj nañoo répété. ok def nañ sax mu am quelques imperfections parce que gëj naa way comme nii damay toog lu yàgg duma ko def te du yoon. du yoon ne ko damay ragal ñu dem ci plateau muy tëgg. Mhm. déconcentré parce que tout le temps bu ñuy répété. Mhm. su tëggee yenn tëggee rek damay déconcentré damay arrêté kontaan. parce que dama j'adore ce qu'il fait en fait. macha allah waaw. non mi ngi def loolu rek laay wax kii ne te tem ñu dem plateau mu tëgg rek déconcentré ma ndax moom bu tëggee rek man damay mooy loolu. ok léegi nag euh, ci ay cover nga ñu may léegi yi euh, nga xamante ne ñaari nga Marème bi nga wax léegi ak ki nga xamante ne mooy Ndiaye mais aussi dañuy may sa benn produit boo xamante ne répété nga ko ak ñoom euh, bu ko defee ñu déglu ko. ba bu weesoo ñaar yi bële jotuma ko répété ak ñoom franchement mooy clip bi ngeen yor. Mhm. parce que bi muy génn boobu commencé naa liggéey déjà. Mhm, ba tey amu woon temps pour répéter si ak ñoom. Mhm. mais am na yoo xamante ni yor nga ko te répété ko ñoom. waa yëkkatil ñu voix bi na voix bi toj yaa xam nooy def ak looy woy bu la nee sa nee ñu caméra yi rafet na kooku euh, mu si yow la rek en tout cas ñu yëkkatil sa voix man nee naa dama bëgg àdduna xam la xam lu nekk ci yow aussi. yaa xam nag loo ñuy may bu la nga woy Mouhamed di sa sang bi nga woy El Bachir bu la neexee nga woy waa Rési aussi yaay xool Kalz <laughs> oh, bu la neex nga woy yaay xool nu muy neexee rek bëgg nañ Kalz borom réew mi fili hmm. ay way buro buro dali kaltu borom réew mi laay man tey laa lay wayal daale ay way buuro buuro daali waa mi ñëw leen yi laay man tey laa leen wayal daale dañu laa dégg sëriñ bu soo waaw yéen ñaar ngeen bokk minu maam ndey Asta nga bokk benn baay kalsu borom réew mi tey laa lay wéyal daale awa bala Asta Njaay faa jur sàmm ngoone allaay Asta Ñaŋ xajata si laay Seynabu Faal maa joojo mboot ay way buuro buuro daale ay ame sama tëggkat di laay wayu man tey laale wayu daale ay way buuro buuro daale ay bashir sama guitariste bi waay ñëwal tey laay moo taala faal kenn du dem nga des sama manager bu ñaawul bey di la ñaanal yàlla bàyyi la fi ba fekkee waay ay waay buuro buuro daaleey waa réew mi di sant waay ay waay ñu ndeysaan nee la musu yàlla xam ne yor na voix extraordinaire xaw xam nga ko wala xamoo ko wala ñi ngay àndal xam nañ ko wala xamuñu ko mais sa voix de spécial dafa nekk voix boo xamante ni ko déggee ci yow mënuñu ko déggaat feneen ah, kenn royoo ci kenn dafa nekk loo xamante ni dafa naturel ci yow en tout cas ah, mention spéciale ah. ñu ngi lay ñaanal yàlla aussi li nga xamante mooy bon vent di wax aussi sénégalais yi nañ la bàyyi xel bu baax a baax mais musu lan mooy projet actuellement nii parce que wax nga ma am na clip yi génn sànq mm-hmm. ak li nga xamante mooy eh, war a à part loolu amul leneen loo xamante ni yaa ngi koy waajal say fans. ba samay fans je pense que yu mag pourquoi pas yenn festival ah, fi nga xamante ni euh, euh, mooy Kër Mbay Fall pourquoi pas Kër Massar ba fi nga xamante ni mooy Rufisque aussi xam nga gën a percé wu ci li nga xamante ni euh, mooy ci biir yenn secteurs yi ba ci biir banlieue bi bi nga xamante ni mhm. aussi mooy Guédiawaye Thiaroye Pikine aussi ci yenn bagages yi nga xamante aussi pourquoi pas doo am ay collabo yi nga xamante ni di nga ko am ci secteur boobu noonu bu ko defee ngeen ngeen nga jéem a def dara Euh, ñu xam ne lii monsieur moo koy def. incha allah loolu yëpp ñu ngi si mhm. staf bi ñu si ci mhm. te bu son yi génnee après loolu yëpp dinañ ko gën a xoolaat que Kër mbay Fall am na jardin public et dañ fay faral di def ay concerts ak yëpp dafay am. Mhm. incha allah dinañ xool loolu yëpp ñu ngi ci discuter énormément sax. Mhm. loolu yëpp dinañ si dox. mun nañ xaar loolu daal fan si mën bien sûr mën nañ ko xaar parce que ñun bëgguñu lu dul bëggal leen. Ah, franchement surtout parce que ki nga xam ne da ngay def dara ñuy apprécier di aimer. Mhm. may remercier sama sama waa page TikTok. en même temps parce que eh, xam naa ne booy tàggatoo. waaw mooy loolu di leen jaajëfee parce que yéen mm. tàggatoo mbër ngeen di def. xam naa sax lu ñu may jox daanaka presque. tàggatoo mbër ngeen mais euh, li nga xamante mooy ñett son yeeg événement yi amul dara looy la ñoo da nga kaleegum pour l'instant loolu ngeen kaleegum ak staff yi. waaw loolu moom lañ kaleegum. Ah, ak contrat contrat fàtteeguma ko de contrat bi nga xamante ni euh, am nañ ko ci série bi wuyu ma moo xamante générique bi am nañ si xaalis de après dinañ si ñëw loolu dinañ si ñëw mais xam naa ni daanaka li ñu mayoon presque si waxtu lu ci des bareetul ma bàyyi la ni nga tàggatoo tàggatoo mbër ñi nga war a gërëm bari nañ <laughs> ñi nga war a sant bari nañ ah, parce que moxtaale rek moom ku indi ay nitam mhm. amet indi ay nitam Bachir waxaali ma ba ci yow donte adduna la ñuy tudd tey ma bàyyi la rek <laughs> ok waaw ma leen di remercier yéen d' abord. Mhm, yéen ñu invité waaw. may remercier kër la. ah merci beaucoup kon mhm. neex na. duñ fi géej saa yoo bëggee jaar saa yoo bëgg a lu ma génnee damay jaar. amul benn problème incha allah waaw. may remercier sama famille. ok di remercier sama yaay. Mhm. parce que franchement lu ma dugg rek moom ànd na seeg man. macha allah aw ma fayam. macha di remercier Mortala. surtout. laqale na 23 heures la may woo sama heure tëdd nelaw zéro heure mën naa ne sax su ma su may su ma su ma nekkee di di di force nii ba léegi moom moo tax découragé woon naa parce que genre dama ko defoon nii rek pour sama passion dama daan woy école mu neex nii mm-hmm. rek mm-hmm. mais moo fi nekk wut ay opportunité jàll fu ne musu def naa lii sa def naa lii heure bu ma bëggee bàyyi rek. Mhm. damay xalaat moom effort bi mu si def. te billaay bëgguma ko nee na ci nag ma koy remercier bu baax. <laughs> def na lépp lépp lépp macha allah. may remercier sama musiciens yi aussi. Mhm. ay nit yu baax lañ tout le temps Bachir day wax nañ répété nañ def nii programme yi nii nañ def nii. Mhm. franchement ñoom it aw ma seen fay. di remercier samay copines. sama waa staff. musu famille et samay copines aussi amu seen fay. l'autre jour dañ ma message waaye yow Bibiche mi ne ci réew mi si TikTok bi lëmb fi. li nga yembar nga yembar nekk si TikTok bi loo tëree def ay vidéo mën leen ay waaye te pour li may liggéey nag moo tax aw ma temps. moo tax du ma am temps mais. deux trois jours yi passé rek laa kii. Mm-hmm. dugal léegi nag ñu ngi kontaan. mais yaa ngi doon bëggee aussi euh, ñi nga xamante ni ñu ngi lay suivre sa page TikTok. bien sûr maa ngi ci maa ngi def lépp lu ma mën. yaa ngi leen di non yaa ngi leen doon ziar léegi nuyu leen rek. waaw ñu ngi suivre sa page <laughs> maa ngi leen di nuyu parce que ñu ngi direct en même temps. Ah, ma leen di nuyu di leen wax ne kontaan naa di leen remercier ci abonnement yeeg j'aime yeeg lépp lépp mm, lépp. ngeen xaar Babel aussi mi ngi ñëw waaw. ak confiance bi ñu am si man. Mhm. parce que c' est pas donné à tout le monde. mais Babel à part générique bi xam naa dinañ dinañ ci gis en tant que actrice wala benn figurant boo xamante ne ci bi nga xamante ne dina ci bopp. ah ñu ngi koy xaar daal en tout cas. yàlla baax na. ñu ngi koy xaar xaw ma nag euh, waa néegu rab ñu may déglu wala producteur ñu may ba ci moxtaala bi nga xamante ni yéen a ànd. Mhm. en tout cas ñu ngi xaar loolu ci mosu parfois ñu génn sax ñu jël riposte. macha allah fay. Mhm. waa comptoir matin ak soir. Mhm. waaw. waaw waaye may remercier ñëpp ku ma su ma ku ma ku ma limul rek nga xam ni mooy loolu mhm, mais remercier naa ñëpp maa ngi sant ñëpp vraiment ku lim jum mhm. ah, en tout cas kooku nekkoon ki nga xamante ni euh, mooy musu moo nekk la diva laa ko tuddee mooy la princesse aussi bi nga xamante ni euh, nee naa la bu yuuxoo nga jooy mais aussi bu yuuxoo nga kontaan euh, bu yuuxoo am li nga xamante ni nga ko ci biir xol parce que ci xool la waaye day jógee ci xool jëm ci xol kooku nekk musu bi nga xamante nee naa leen na ko sénégalais yi bàyyi xel bu baax a baax a au niveau na nga ko bàyyi xel mais aussi ñi nga xamante ni euh, dépassé nañ ko wala ñi nga xamante ñoo nekk kawam xam naa ni très bientôt dina leen romb ak allure bi nga xamante ni euh, dañuy tiit sax naan kii fan la jógee kooko nekk musu boo xamante ni tey ji nee naa la amul fu mu tojul ci Sénégal mais aussi surtout nag euh, fi nga xamante ni mooy diwaanu Kër Mbaye Fall en tout cas ñu bari ñu ngi ko fay bàyyi xel mun naa waa Kër Mbaye Fall lépp ñoo ngi bàyyi musu xel bu baax a baax mais aussi ak ñi nga xamante aussi ñoom lay liggéeyandool secteur am mais aussi fi nga xamante ni fa la juddoo ah, ah, Sicap Liberté 5 euh, autant pour moi mhm. euh, ñooñu aussi ñu ngi koy bàyyi xel parce que ba mu fa jógee nekkoon na xale mais aussi actuellement ni màgg na mu indaale ay bagages yu bari nee ko nag sénégalais bàyyi xel bu baax a artiste bu nar a euh, bu mot a bàyyi xel la euh, kookoo nekkoon ki nga xamante ni mus mooy euh, musu mais aussi ñoo ngi bëggee ki nga xamante mooy Mouhamed parce que borom tur bu neex bi sang-sang mhm. mooy El Bachir ah aussi ñu ngi koy jaajëfewaat bu baax a baax ba di bëggee ki nga xamante H24 may woo moom aussi gis nañ li nga xamante sonn na ci mhm. carrière musu bu baax kooku di moxtaal aussi ñu ngi koy bëggee di ko jaar di bëggee aussi fa la ñuy jaare rek di xamante ni ma doon seetaan via Facebook via YouTube aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax eh, eh, ni mooy Mouhamed Sarr ak eh, leen di bëggee di leen jaajëfal bu baax baax Amady Niang le grand coordonnateur bi nga xamante ni chaque émission bu amee rek moom mooy coordonné affaire en tout cas grand Amady maa ngi bëggee di ko jaajëfee di leen wax d'ici là portez-vous bien mais aussi restez fidèles au programme de la Rewmi TV ba demain inchallah